On reçoit tout de suite Aminata comme chaque jeudi pour Défi 10. Bonjour Aminata. Bonjour Pape Cheikh. Na nga def Aminata. Maa ngi Ox. Fatou Lo na nga def. Maa sa bopp de. Pape Cheikh xamoon naa dig ma ko wax nag. Ràpp na va mën tenir ma tooñ de. lii yëpp yow la. Eh, la vie des experts rap bu baax rap bu baax. te ñoom xamuñu daw bu rappee leen rap. bàyyi leen rek hmm? rap na rap na ah léegi da ngay ciy bëtu. waaw waaw <laughs> daf maa rëcc. léegi kii nag kii nag léegi lu ko dal léegi. am na dañ ciy bëtu léegi. yaa ko tooñ léegi da nga ciy bëtu. ñoom ñoo nekk da nga ciy bëtu waat nga xool eh, boo may ciy bëtu. bul fayu damay jooy de <laughs> Aminata fi ñu mooy dëgg nag. ba ba tey ñaari weer yi nekk eh, wax ci ci lenn nag lenn waxuma ci. <laughs> waxuma ci lenn <laughs> alors Aminata tey défi diis euh, kan nga ñu indil wala kan moo relevé défi bi. tey dañuy dem seeti Awa Ndoye. une jeune femme. Ah, a ah je pensais qu'elle s'appelait Adja Ndoye mais Awa Ndoye plutôt. Awa Ndoye Awa Ndoye oui elle est ans moom elle a quitté le Sénégal bi mu amee 13 ans. dem Arabie Saoudite. Uh-huh. après son bac mu dem Lyon elle a eu un master en droit. Mhm. dem xool xool lan moo tax ban déclic la am ba tax mu ñibbi ci Sénégal. J'ai fait une, euh, une partie de mes études au Sénégal j'ai quitté j'avais 13 ans euh, je suis partie en Arabie Saoudite pendant 6 ans après cela j'ai eu mon bac et je suis partie à Lyon en France donc j'ai passé pratiquement 7 ans là-bas euh, au début ça a fait un choc culturel parce qu'on quitte Sénégal pour aller en Arabie Saoudite pour aller en France donc ça fait trois cultures différentes qui m'ont forgé, qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui, parce que ça m'a permis d'appréhender euh, plusieurs aspects, en tout cas d'avoir une sensibilité euh, humaine par rapport aux autres et d'avoir une facilité d'adaptation et facilité euh, de m'imprégner de la culture de chaque pays où j'ai été. J'ai fait des études de droit là-bas, j'ai eu mon master 2 en 2009. Puis euh, j'ai essayé de m'intégrer en France en travaillant. Mais le parcours étudiantine était difficile. Euh, J'étais boursière. mais euh, ça ne suffisait pas, donc il fallait travailler en même temps, il fallait travailler avec les études. Et euh, comme je faisais du droit, c'était assez difficile de cumuler études et euh, travail. Mais euh, avec la force et euh, la foi, comme je dis, j'y suis arrivée. Parce qu'on est euh, africaine, musulmane, et une femme de surcroît, c'est très difficile de s'intégrer dans le marché du travail, malgré qu'on ait toutes les qualifications possibles. pense qu'aller ailleurs, c'est enrichissant. Ça nous permet de voir autre chose que euh, ce qu'on voit au jour le jour. Ça nous permet d'avoir un recul. Parce que lorsqu'on a quitté ses parents, lorsqu'on quitte sa famille pour partir, donc euh, on est obligé de se responsabiliser, euh, d'avoir une force de caractère pour atteindre nos objectifs. Donc lorsque on revient, on a ce recul de la vie qui fait qu'on appréhende les choses d'une différente manière. on n'a pas la même vision, on n'a pas les mêmes sensations. Et euh, ce qui fait qu'on peut avoir une objectivité qui fait que euh, on sait ce qu'on veut, on sait comment y arriver et on va tout faire pour que ça arrive. Euh, Lorsqu'ils partent, il ne faut pas qu'ils soient déviés de leur objectif parce que la tentation est très facile là-bas. personne ne sera là pour vous surveiller. Donc, euh, mais si on se garde en tête qu'on est là pour une chose et qu'on veut revenir au pays, euh, c'est très important. Euh, moi, je n'étais jamais partie dans l'optique de rester euh, en France. J'ai toujours voulu revenir, mais je voulais avoir un déclic qui me permettait. Donc ça aussi, c'est propre à chacun. Le moment où tu te sens prêt à revenir à, au pays et être prêt à galérer, parce que venir en un mois, six mois, trouver du travail, c'est pas facile. Donc faut se donner un an, deux ans, trois ans, pour mon cas en tout cas, voire plus, faut trouver quelque chose et s'insérer. Donc euh, c'est un choix, parfois c'est un sacrifice de partir, c'est un sacrifice de revenir parce que peut-être qu'on avait une situation stable là-bas, mais euh, on est jeune, on a envie que notre pays réussisse et si nous jeunes on part et on ne revient pas, je veux dire l'avenir de notre pays peut être euh, en péril. Mais il m'est arrivé parfois euh, d'être interpellée euh, sur le fait que j'étais juriste. Certains pensaient que je ne pouvais pas être cadre, avoir un bac plus 5, être juriste, de surcroît être une femme, être africaine. Donc euh, c'était plus pour eux de la curiosité, comment cette femme peut travailler dans la restauration ou autre alors qu'elle a un bac plus 5. Donc c'était surtout par rapport à ça. Ou d'autres qui me posaient carrément la question, quand est-ce que vous rentrez chez vous Donc, euh, lorsqu'on vit ça au quotidien, on se dit, mais on n'a rien à faire ici, donc euh, mieux vaut rentrer chez soi. On n'est jamais mieux que chez soi, de toute façon. Awando yi s'appelle tel entre Arabie Saoudite France ak Sénégal fu nekk jaar na fa na surtout euh, ci euh, chogu culture yi ni affaire yi wuute mais teewul relevé na défi bi ñëw na Sénégal euh, teg li mu xam oui teg li mu xam ba pare avant muy ñëw elle est restée un an en France yoo xam ne chaque jour elle se posait la question est-ce que war naa ñibbi su ma ñibbee dans quelles conditions la ñibbee mm. est-ce que su ma ñibbee dinaa am liggéey mm-hmm. donc pendant muy toog di xalaat si loolu di réfléchir mhm. à un moment donné mu ñëw mu ñëw elle est restée deux trois ans yoo xam ne c'était vraiment difficile pour elle donc mu dund ñaari discrimination discrimination ci France gi mu nekkoon mhm. maanaam am na ay diplôme mënu fa am liggéey bi mu bëgg mhm. ba pare discrimination ci fii nii bi mu ñibbi ñibbisee parce que bi mu ñëwee ñëpp dañ ko naan waaye yow loo fii def comme si ba mu nekkee fële dégg naa ci reportage bi dafa doon ne kañ ngay ñibbi kañ ngay ñibbi tu vois donc kañ ngay ñibbi nga ñibbisi tamit ñu ne la loo fiy def boo fi defee weer sax ñu ne amatul ay ay kayit wala wala wala fa mu nekk doxatul moo tax mu ñëw tu euh. vois donc loolu metti mu ñëw déposer ay papiers ci entreprise yi mais dañu xaw a am complexe un peu ñi nga xam ne dañuy yàgg waaw dafa metti ñi nga xam ne dañu nekk <laughs> extérieur donc moom bu demee day sentir que ne patron bi wala ki koy defal entretien dafay ragal dafa naan kii su ma ko jëlee mbaa du mbaa du toog sama place ah. tu vois donc dañuy dellu si te dafa am lu mag yi di wax tout le temps ñu koy négliger mhm. et ce sont des paroles yoo xam ne je pense que si si euh, <laughs> si yu ne dëgg la muy lan muy lan lu mag ñu wax.

ne Serigne Saliou lu mu wax waxal. jox leen ma ndaw yi ma def ci ñoom la Serigne Touba daan def ca magi dem bi. ah d'accord voilà donc mu ngoog euh, Awa jàmbaar la ah. euh, ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy féliciter bu baax ah. awa awa doy pour jigéen ñi par exemple jigéen yi nekk extérieur am na aussi beneen contrainte boo xam ne defe naa duñ ci bàyyi xel. muy wat su ñu suñu sénégalais yi dañuy benn instant da ngay bëgg aussi am borom kër. non c'est vrai. <laughs> non non non non <laughs> non non dëgg la. cest à boo nekkee extérieur. am na benn âge boo xam ne boo ci tolloo. da nga bëgg a ñibbi da nga bëgg a jëkkër quoi da nga bëgg a parce que fii. les les choix sont beaucoup plus trucs extérieur soit non pour nga mën a des fois tase ak ak nit boo xam ne voilà c' est compliqué. des fois da ngay bëgg aussi jigéen ñu bëri dañuy bëgg ñibbi Sénégal. góor góor sénégalais quoi góor ni mu mën a aventuré wu nekk si dëkk euh, beneen dëkk. jigéen jigéen mënu ko benn benn moment da ngay te yar doom ak mm-hmm. am fii la gën a. c' est euh, gën a yombee moo tax may wax que ni jigéen ñi des fois elles ont tendance à rentrer. donc ñoom ñoo ëpp ay projet quoi projet ñoo investir projet liggéey ak. projet jëkkër non projet góor ñi sax ah. projet nii. voilà <laughs> <laughs> donc il faut ñu teel ah, ay développement. ay borom kër am ay doom il faut di teel a ñibbisi. jërëjëf euh, Aminata. merci pour euh, awa mi nga ñu présenté xaritu Yaya Wana euh, donc c'est ça et am na ñeneen ñoo xamante ne ñu ngi nekk bitim réew n'hésitez pas venez si vous voulez ngeen def comme ñoom ñi nga xam ne ñëw nañu relever défi diaspora défi 10 la ñu ko tuddee et jeudi prochain on te retrouve. Inch'Allah Pape Cheikh. sinon tu animes ta page Facebook tous les jours. Oui, les défis de la diaspora. Fans. Oui. N'est-ce pas <laughs> Allez,